alhamdulilah ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëmaat baax suñu ñaari waajur muy soxna Xadi Seen si Abdoulahi Ndiaye di am contentement bu baax a baax jàkkaarloo waat ak yéen ci seen seen bu mag bi di Waaf Produit fas yéene andiwaat euh, rek suñu benn ndaanaan ñu koy wax Cheikh Diop taalibu Cheikh Ahmed Limam Diop borom gab kooku moom ku ñu ràññee la ndax Cheikh Diop moom bu ñu nee Cheikh rek Euh, sa xel day dem ci gab sa xel day dem ci Cheikh Ahmed Limam nga xam ne daaw si obi mu ngi fi woon ak ñun di ànd ak ñun ci koor gi euh, waaye ren gis nga yàlla moom lu mu dogal rek jaam da koy nangu ren wóor bi fekk na moom mu ngi ci biir suuf yàlla na yàlla oyofal suuf ci kawam te taas ñu ci barkeem ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi sa sallam ndax yaakaar naa ne mag la woon waaye moom moo moo ñu ñun li ñu doon doon xale moom moo ñu daan dàq ne jaamu yàlla fuuf ndax euh, yi li mu defa ni tey àddunaam yëpp mooy jaamu yàlla nekk ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andi yàlla yàlla oyofal suuf yàlla yàlla yokk leeram te asuñ ci barke yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa xam naa bala ñuy sori rek dañuy jox seex Diop ndax dañuy wax ne otoraay bu bu jubee gaar day corné kon nag Cheikh dañ koy jox xool nan lay corné moom ci yonent bi. waaw ah, asalaamaaleykum ñu ngi di nuyu samay ñaari waajur di leen ziar di leen ñaanal jàmm ah Cheikh xam naa bala ñuy sori dañ lay wàcc rek Cheikh daal na ne laa ci yonent bi ñoo xam Cheikh nan mooy Manina. Muhammadu Rasulullah imaamul anbiyaa kenn dootul mel ni Seydina Muhammad. muhammad rasuulillaahi arab ba neena kayfa talqaa ruqiyatal anbiyaawu yaa samaawu an mata walada samaawu sidna muhammad anta misbaawu كل فضل فما تدر إلى أن توك الأدواء محمد رسول moo tax seex seex saadu la doomi seexina seex Muhammad Fadal ibnu maamina taalibal xiyaar borom xawdu daaru borom gànnaar ak saalixiina maami sërif ay dara mi jooyte noppee gu seex na seex saat gu neena man seex na seex saadul abiihi maa ngi waat ci yàlla diggante asamaan ba suuf kenn dootu sukk jur ku mel ni seydina muhammad seex na seex saadul abiihi bu yemoon ca wax ja daa ñu ko gëm waaye da caa dolli di waat naan wallahi ma fi ardi wa samaa'i kuf an li ahmad min al asiyaayi wa duudu wa daalo bil mustafa sidna muhammad wa saaka min ikramihi lahum kafa wa amanna al bahdu bi wal bahdu seex na seex saad bu neena حقا علي قول سمراد سويك أنت سينة الآيات kenn dootul mel ni Seydina Muhammad macha allah macha allah kon mbokk yi muy noonu gis nga kooku mooy seex te ko te yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi waa seex ñu bëgg na xam seex moom tagg yonent bi sallallahu alayhi seex mu ngi way waaye bi neex na tegu na si yoon seex am na dégg seex loolu ak ngéwél la wala seex moom daf ko doon wala lan la foog la jële way waaw way moom xam naa ne mën naa ne dama koo doon mhm. du ci ngéwél nag waaye mhm. dama fekk juddu mhm. fekk samay nijaay yëpp nekk ci aar bi di woy yaakaar naa ne am na ñaar ba ñett ñoo xam ne dañuy woy man ma ñëw ñeenteel man tamit ah macha allah kon Cheikh buñ ko déggee daal seex daal jël na ay tànku nijaayam waaye nag tànk yi jël moom tànk yu baax la ndax lu baax moom nga roy ko moom loolu moom am na solo lool macha allah yal na yàlla xeeb dolli yal na yàlla taxaw la yal yàlla wéral baat bi ci barki yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, waaw seex ñu bëgg a xam seex moom ah, way bi seex fan la jëlee way bi ca ndax ndax seex dafa ñëw Dakar gis nit ñi way way bi neexum bu dugg ci wala seex moom te daara jëm doon jàngee yu ñu koy wax di gab gaawaan foofu la jëlee way wala fan la jëlee way waaw way nag mën naa ne daara ja ko jële parce tamit ku fa jaar ku ne donga yi bari nañ lool mais dañuy dem daayira di si wër léeg ñu lay tere ngay làqatu di dem mais biir woykat yi fa nekkoon ci mag ñi day am ñoo xam ne ñoo la cay neex ñoom ngay bëgg ba jaare fa nekk woykat macha allah man moom damaa leeroon ne man maa ngi ñëw di seetaan si waaye seetaan taxumaa jóg damaa bëgg bokk ci ñi woy mhm. mhm. macha loolu rek am solo ndax nit ku nekk nit da ngay am pas-pas am ngëm-ngëm euh, loolu rek mooy àdduna ndax nit moom da ngay gis dara lu baax nga bëgg ko dox jëm ca mooy waral yàlla jàppale la ci ndax euh, fula jooj ak fayda jooj moom moom mën a tax moo moo tax tey ji nga ñëw ci suñ seen bu mag bii di waaf di leen di leen tàggalante yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw mu mel ni seex ku ne seex Diop rek sa xel dina dem ci seex Ahmed Limam Diop ndax xam nañ seex nan la demee rek seex Ahmed Limam seex euh, lan la seen imaam def ci yow ak lan ban yëg-yëg am ci moom. waaw seex moom li mu def ci man mën naa ne lépp lu nekk si man rek moo ko ci def ndax man. yaakaar naa ne ba may dem gàpp boobu xàmmeewu ma li ma xam bariwul lépp lu ma xam ak lu ma mën rek foofu laa ko jëlee di ko sante waa gàpp gépp di leen ziar te di leen nuyu lépp lu ma mel rek ñoom sëriñ imaam moom xam naa li mu def ci man xajul si émission bi. wallaay wallaay loolu am ah, dañ koy tënk rek. waaw waaw foofu la ñuy jaaree xam naa nuyuwaale xalifa ba. muy Cheikh Mouhamed Diop nga xam ne tey moo fi Cheikh Ahmadul Makhtar. moo fi seex Modou Diop. moo fi Cheikh Ibrahima Khalilullah moo fi Cheikh Ahmad Limam Diop. Mm-hmm. foofu lañuy jaar rek ñu nuyu ko. ñaanal ko yàlla yàlla guddal fanam yàlla na yan bi oyof ci kawam ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu lañ koy ñaanale suñu sëriñ see Abdul Xaadir Diop ak uh, njaboot ga yëpp waaw mel ni Cheikh nee moom li nekk ci moom yëpp si Ahmed Limam Diop moo ko def ci moom te loolu bu ko waxee ñu xam ne loolu lu am la ndax ku xam seex Diop ku ne eh, xam ko ci kippaaru si Ahmed Limam Diop waaw ñuy ñuy laaj seex nag daara ja ndax euh, seex nekk na ci daara ja ba jóge ci daara ja hmm. waaye rakam yi mu bàyyiwoon ci daara ja tey comme que mu ngi def nekk ci émission yi di dem ci rajo yeeg ñu euh, seen YouTube yi. Hmm. seex lan lay denk gone yi nga xam ne ñoom la bàyyi ci daara ja. waaw ñi ma leen di dénk moom mooy ñu góorgóorlu rek xoolaat bu baax fi ñu teg seen tànk ndax dañoo toll jamono joo xam ne jamono ñi dafa yàqu te am ñoo xam ne dañ ciy nekk nii rek waaye pour këf leen yóbbu leen dafa yomb. nit nag yow yaay yeew am sa fullaay bopp yaakaar naa yenn yu ñàkk fayda yi moom ak yu caaxaan yi dara warulaa fukk yóbbu la nit dangay am ngëm-ngëm bu la kenn fekk ci lu baax yóbbu la ci lu bon parce que yow lii nga nekk mooy lu baax kee lii mu mooy lu bon yow ni muy fexee pour xëcc la yóbbu la ci lu bon yow noonu nga war a fexee pour xëcc ko indi ko ci lu baax. waaw te loolu te sax moo am ndax euh, li li li baax moom du ma sa bon ba àddunay tukki waaye li bon it du ma sa baax ba àddunay tukki loolu rek moo fi nekk kon loolu nañ ci jaaree gone yi nga xam ne ñoom ñoo des ci daara ja mm-hmm. ñu xool ko ku mel ni Cheikh Diop mii li muy def ndax li mu def nii mm-hmm. ngëm-ngëm ak bëgg lu baax ak am pas-pas moo tax mu mën a dem ba ak si fii kon nag bépp xale bu nekk ci daara ja kon lii Cheikh def war nga ci fexe nga roy ko ci bu baax a baax a baax euh, mu mel ni Cheikh Diop tàggatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam Cheikh moom ndax am na ay son wala Cheikh génne guddi son wala Cheikh moom lan lay pare waaw Cheikh yaakaar naa am na ay sëngal yum jot a def waaye tamit am na leneen lu ñuy waaj loo xam ne yaakaar naa boo jumul sax war nga cee xam dara xam naa jamono yi ñu jëm rek incha allah dina am lu génnaat daal incha allah. waaw mu mel ni Cheikh kon def na ay singal te seex ko xam-xam xam ko ci kippaaru Cheikh Ahmed Limam Diop Cheikh moom lan la woyal suñu maam. suñu de ci der rek may dégg. wetal nga noo Cheikh Imam Diop sa dem gi daal jaaxal na noo yow lañ xamoon nga dem ba noo fu ñuy jëlee ti xel mu dal jirim yaa ngi jooyoo faqir yaa ngi jooy néew gi doole yaa ngi jooyoo seex imaam Jóob ñëppi naa xoolal keroog fajaruk altiné ga ba xibaar ba jógee réew maa ngi jooyoo adduna bi yëpp ñoo ngi jooyoo xam ne ku baax ka dem na Cheikh Imam Cheikh Imam Diop kenn ku ne def nga ci moom loo xam ne day yaakaar ne moom rek nga féeteel ngir sa mbaax yow Cheikh Ahmadul Imam wetal nga noo sa dem gi daal waat naa ni jaaxal na noo yow lañ xamoon nga dem ba fu ñuy jëlee ti xel mu dal. <laughs> macha allah macha allah ku dégg Cheikh ni Mbaye nga xam ne kon comme li ma waxoon léegi léegi loolu moo ci loolu moo ci nekk. ndax yaakaar naa ña fa ku nekk ya boo boo xoolee sa bopp rek dangay def ne si ñoom yow rek la fiital mm-hmm. euh, li ñuy ñuy wax ku mel ni El Hadj général borom tabala ji moom xam na lu mel ni noonu moom ku ku mu wétare da def na yow mi yow rek la féeteel ndax ba ci man muy keneen ak keneen ndax yaakaar naa comme liñ ci liñ ci mën a wax ñu lu mel noonu lañ ci mën a wax ndax xam nañ ci moom lu bëri bëri bëri bëri muy jaamu yàlla ga muy tabe ga muy baax ga muy oyof muy wàcce boppam bëgg jaamu yàlla bëgg lu baax di wut lu baax te xeñtu lu baax fu toll kooku suñ góor googu yàlla nañ ko yàlla fayal ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ndax ñun moom amuñu fayam yàlla rek moo am fayam wallaay yemuñu fayam ndax euh, liggéeyal na yàlla lu ne liggéeyal na yàlla lu ne yàlla na añ ci barke yonte yàlla Muhammad sallallahu mu mel ni seex euh, nekk na ca daara ja jugee na ca daara ja seex ñëw na dakaar ndax seex moom ñëw na Dakar ndax seex mu ngi mu ngi mu bàyyi xel bu baax a baax lan moo ko yóbbu woon daara waaw li ma yóbbu woon daara moom xam naa ne man sax jaaxal na ma li ma booleek waa gab waaye dañ naan lu war a am rek ndax léeg dinaa toog sax sama xel dem sama benn nijaay moo fa demoon ñëw sama papa gis ko ni mu mel rek comportement bi ak yaru bi ak liñ def si moom moo tax daal mu ne ci ginnaawam lu judd ci ginnaawam rek nañ ko yóbbu gëm. macha allah kon lool loolu rek kon li ma wax léegi si ah si si Ahmed Limam Diop euh, loolu rek firndee na firnde ndax euh, de mu dem fa ñu defar ko fa ba ka ñu dem fa ñu defar ko ñu defar fa nit ba pare. ka tax ñu defar defar kooku noonu mu ñëw kooku yëkkatiwaat ay doomam ne njabootam bu sañan ku judd ci njabootam dañ koy yóbbu jël yóbbu ko sëñ Imaam Diop kon loolu rek firndeel na li ma wax léegi ci baax gi ak tabe gi ak bëgg lu baax ak euh, nangoo sonn ci jaamu yàlla góor googu amuñu fayam yàlla ñu ko yàlla fayal ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw mu mel ni yax euh, jamono bi euh, tàggatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéeme na daal ndax jamono bi daal comme falkaloor bi dafa bëri daal si jamono bëri na loolu si jamono ndax gis nañ forme yi ni mu fi bëree surtout suy sax ci euh, xaadar ndax fi doon ñu bëri dañuy defee sax affaire bi fo am fo la du du du du loo xam ne lu jaamu yàlla la wala dara ndax seex moom pare na pour bokk ci ñuy falkaloo wala seex moom dafa pare pour dëggal rek dem. waaw seex moom yaakaar naa ne dara ay caaxaan moom nekkuma ci lépp loo xam ne daal war naa ànd ak suñ tabala yeeg ci tarixa bi ak tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ñu war ko cee boole. yaakaar naa ne dinañ ko def waaye lépp loo xamante si ni nii bokku ci yaakaar naa dañ koy jël tege ko na ndax fa ñu yare fekkuñu leen ci loolu xamuñu leen ci loolu te tamit tey buñ demoon ba gis ñu ci yenn yi dina leen jaaxal lool ndax dañ naan kii de maa ko yar bi ma fi bi ma fiy jógee melul nii léegi dafa dem ba nuppi di jëw ci suñ ginnaaw di mel ne leen te yaakaar naa ne man su ma sañoon du def loo xam ne bu nit dee ñëw damay làqatu wala may bañ mu ma cay fekk macha allah waaw mu kon loolu am na solo ndax seex si ñimaam moo ko yar te yaakaar naa ne seex si Ahmed Limaam làqu na làqu na mu nekk si moom mu ngi fi nekk ba léegi waaye yaakaar naa ne bëggut a def loo xam ne buñ buñ buñ buñ fekkan sa imaam fa mu tëdd ñu ne ko tey seex moo def sa taalibe bi moo def jëfukaan bi bu ñaaw bi euh, moom loolu loolu rus na ko kon seex moom yaakaar naa ne lépp lu lu xam ne lu lu lu war a safaanoo la wala yooyu seex du ko jëf kon bala ñuy sori seex dañ lay bàyyiwaat rek nga ne der yëkkati wàlla ñu si yonante bi bala ñuy bala ñuy joxe bala ñuy jeexal émission bi muhammadu rasulullahi imaamul anbiyaay kenn dootul mel ni seydina muhammad muhammadu rasulullahi yow yaay imaamul waraa muhammadu rasulullahi mooy imaamul mursaliin muhammadu rasulullahi mooy xayru haakimiina muhammadu rasulullahi kii mooy xayrul anbiyaay muhammadu rasulullahi ñi naan ko al amiin muhammadu rasulullahi ñi naan ko muxtaaru muhammadu rasulullahi ñi naan ko taaha sidna xam ñi naan ko yaasin góor ga ca Tuuba Sëriñ dinaa way seydina muhammad rasulullahi sëriñ bamba neena noorul xasimu xajjara bihin husuuru xaysara man kaana fi umul xura makata xayral xura min kenn dootul mel ni seydina alaaji malik bakke rek dara aram loo man kumba caam alaaji malik neena yow mi dëkk sénégal bëgg xam seydina muhammad rasul rasulullaay jërul ngay dem Makka jërul ngay dem Madina jërul ngay dem Saam jërul ngay dem ci yeneen réew yi ko jéggaani Alaaji Maalik nee na soo bëggee xam Seexna Muhammad da ngay ñëw fi ci Tiwaawan wax la kan mooy Muhammad rasulullaay Alaaji Maalik nee na leeru Mustafa wa innahu is araada laa nasatana abaana mi nuurihi nuuru nabiyina alami alaaji malik neena inna alxawaalima haadiha wa saafiliha asiatun min afdali nasimi wa ahlamalaahu hadina nubuwatuhu wa kaana aadama bayna nasimi alaaji malik moo xam yonnen ah, mu mel ni nag ah, li ñu cërale woon ci waxtu yi yaakaar naa fi mu toll nii mu ngi commencé cate kon du ñu defaat loolu rek Euh, santaat yàlla julliwaat Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu baax ñaanalal bu baax suñu ñaari waajur muy soxna Xadi Seen si Abdoulaye Ndiaye yal na yàlla guddal seen fan wéral seen cër ci barke yonent yàlla Muhammad noonu koy ñaanalee suñu kam suñu waaji alaaji mañaan ñu ku baax ku tabe ku wàcce boppam moom it yal yàlla guddal fanam wéral cëram ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanalal bu baax ñi nga xam ne ñooy béggee Waf Produit suñu chaîne YouTube di leen ko ñaan di leen ñoom it yàlla yàlla guddal seen fan yàlla wéral seen cër ci barke yonent yàlla Muhammad salaa salaam di nuyu bu baax suñu yaay suñu maam suñu lépp soxna Oumy Diouf ak njabootam ku mel ni soxna Fatou soxna Khady yaa ak njaboot gi soxna Diarra ñoom Aminata ñoom mama ñoom ñëpp ku lim da ngay juum yàlla yàlla guddal seen fan wéral seen cër ak Saliou ah, sama sama waa ji yàlla yàlla guddal fan wéral cëram ci barke yonent yàlla Muhammad salaa salaam Euh, kon Cheikh euh, dañuy def rek lu du jox la kàddu gi yow it nga gërëm ñi nga war a gërëm bala ñuy yëkkati jataay bi. Ah, waaw ginnaaw buñ sante yàlla julli ci bi sallallahu alayhi wa di gërëm samay ñaari waajur di leen ñaanal jàmm te di leen siyaar bu baax a baax di nuyu waa gépp di leen siyaar bu baax di ñaanal suñu xalifa Cheikh Mouhamed Diop yal yàlla suñu boroom guddal fanam te wéral yaram ci barke Seydina Mouhamed di ñaan si Abdou Khadir Diop yàlla guddal fanam may ko ak mbooleem ku yeewoo gab ak mboolem julli ci barke yonte bi di siyaar euh, sëñ mañaan di ko ñaanal tamit jàmm moom tamit nit ku baax la ko oyof ndax lépp luñ soxla tamit def ci taxaw ni mu waree wax dëgg yàlla amuñu fayam di nuyu alaaji tamit sama xarit sama lépp di ko siyaar bu baax di ko ñaanal jàmm général tabala waaw yaakaar naa sama mooy sama jiilikat sax <laughs> di nuyu ñëpp di leen siyaar di ñaan weer wi yàlla na yàlla suñ borom lépp luñ ci jaamu mu nangu ko defal ñu ci jàmm yàlla def ci réew mi jàmm ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ñëpp am jàmm di ziar ñëpp nag. ah kon Cheikh kon xam naa kon dañuy def rek nga jaar foofu rek nga ne der rek ñu jaar fa daal di daal di daal lii balaa xam naa nag instant bi moom jógee ni jóge xam naa instant yaa xam ne nga émission bi pare ndax xam naa ne xiif baa ngi a gaay ndax moom <laughs> yàlla def doon dañu bëgg lekk <laughs> neel der rek ñu daal di ma jaar yëkkati plateau bi <laughs> la ilaha illallah la ilaha illallah yonen la ilaha illallah muhammad rasulullah Cheikh Abdou Khadir Jeylaani sultaanul awliyaay doomu Musa jank yoog umul xayri ndeyam ja Seex Abdu Xaadir Jeylaani ki juddu ci weeru koor ànd ak mag ña woorandoo Seex Abdu Xaadir Jeylaani moom la Sëriñ Tuuba naan xaraftuhoo bi saydil bahri jiili imaamina asaala sadad jiili li annaha jaa bihi Jeylaani min jadisil maa'i min arrahmaani يا ربنا إليك أذكر آلي بالمصطفى وخمسة الرجال سرين بامبانينا السيخ الخوس قادر جيلاني أها إس الهلوم والحرفان سرين توبانينا waaw xam naa dañ koy yemale foofu rek ndax loolu mooy wane ne murit tijaan xaadir laayeen lépp benn la ba Sëriñ Tuubaa wëlbatiku di woy Seex Abdu Xaadir Jilaani waaye yemul ca dafa wëlbatiku waat ko doomam si Abdou Khadir Mbacke loolu mooy wane ne lépp benn la. waaw ah, kon mbokk yi mu ngi noonu kon nag xam naa foofu la ñuy jaaree yëkkati jotaay bi ba beneen